yu demee noonu euh, ginnaaw nag bi nga xamante ne euh, Ousmane Sonko ñaari dossier am yëpp fexe nañ ba euh, daan ko ci ci jamono jooju ci lañu jeexal ñoom seen dialogue bi jeexalee seen dialogue également après moom ci lay soo ko wax maanaam périod bi mu wax contexte bi mu wax ak la mu wax ne du bokk boo doon analyser discours bi yëpp yëpp yëpp ci contexte bi mu wax rek la mu wax ak yëpp naka nga koy analyser ginnaaw bi ñu la ziyaaree. waaw ah, asalaamaaleykum ngi leen di nuyu. Mhm. professeur Mounirou nuyu. monsieur Diallo nuyu également euh, Pape Maguette mm. bañ fàtte ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan saa su nekk amaat mbégte teew fii mm. euh, waaw effectivement euh, ci gàttal nañuy ñuy mën a tënk waxtaan bi tey mm. je crois que lépp ngi ci discours kii nga xam ne mooy président de la république adresse à la nation sax puisque forme boobu la ko jëlee woon waaw euh, mu nekk adresse ba nga xam ne nit ñi ñu ngi ko doon xaar. dans la mesure où depuis deux mille dix neuf sénégalais yi. dañ nekkoon ci guuta ga nga xam ne moom président moo leen ci dugaloon. gannaaw ba mu defee référendum 2016 xamal sénégalais yi ne leen man référendum bi ci ñaari weer ñaari mandat laa bëgg ñu accès ko liggéey ci sénégalais yi nangul ma ko dem ci si kër kilifa diine ba ñëpp nangu ci ànd ci référendum bi jàll ñu ne kon gongo léegi Sénégal ñaari mandat fi am. Uh-huh. waaye 2019 ba mu faloo fa la jiixi ba mu faluwaatee fa la jiixi jaaxa bi commencé. parce que uh-huh. bañ ko laajee ne ko comme tey falu nga mooy sa mujjanteel mandat dafa ne fu mu ne nii mënu ma ne waaw mënu ma ne déet. Uh-huh. Euh, wax jooju nag jur jiixi jaaxa ba lii fi amoon mars deux mille vingt et juin lépp fekk ko fi. mu indi une situation extrêmement explosive au Sénégal. Euh, donc adresse boobu moo tax Sénégalais doon ko xaar doon ko doon ko xaar. avec beaucoup d'intérêt effectivement ba mu ñëwee la logique la logique la nga xam ne. moom ca loolu la waxoon loolu la woon bindu ko wax ko. Mhm. mooy maanaam duma def ñetteelu candidature ndéem ay meeram meeram yi nga xam ne féete nañu ci partem ay nitam ñaari at ba ñetti at ci gannaaw ñu ngi ko doon topp naan ko yaay sunu candidat ñu ngi ko doon topp naan ko boo deful ñun fu ñu jëm fàtte nañu 18 million de sénégalais yi mais ñoom seen biir seeni intérêt bopp nañu jàppoon ni que. faw président wax ci ñu gis ay images yi nga xam ne honoré wul pratiquement ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi woon foofu ci présidence. Mm-hmm. di wax bay jooy naan ko boo nekkul candidat ñun fu ñu jëm. fàtte nañu 18 millions de sénégalais yi. Mm-hmm. donc tey discours président bi ak position la mu wane mooy que moom président sàmm kàddoom mooy vertu ba nga xam ne Sénégal ñun dañ ko aadawoo. président bëggoon na sàmm kàddoom te sàmm na kàddoom waaye ay ñooñoom ñoom bëgguñu woon président sàmm kàddoom donc tey buñ naan président jërëjëf wala jaaraama dama naan jaru ko la ko sart réew mi te teg ci loolu la tënku mm. léegi kay fenn nañ ko mu ne na jërëjëf président mooy que ñii ko doon bëgg wax loo wala def loo la nga xam ne moo méngoowul ak charte mu mi moo ma méngoowul ak moral ak éthique hmm. président wan na sénégalais yi ne que ñii ndeke ne seen nafsu seen intérêt kese moo leen fi teg hmm. heureusement que tey jii situation boobu romb nañ ko am am nañu wax sax ni euh, xëy na bëgg ko woon waaye dafa ñëw ba egg foo xam ne euh, xam na ni fii mu ne temm fi Sénégal yi toll ak ni ñu déterminé woo bàyyi rek moo fi sës ndax yow da ngay partagé loolu wala da ngay jàpp ne xamoon na ne du bokk waaye moom moo voilà moom moo bàyyi woon noonu rek ba moment bi nga xam ne ci la ko bëgg a wax mu wax ko waaw mënuma ci mënuma ci mënuma ci être très très très truc pour ne mhm. euh, lii ak lii moo tax def ko mhm, mhm. l'essentiel mooy sur le fait li Sénégalais yi doon xaar mooy la nga xam ne amu ci droit mooy troisième mandat. Mm. ñëw na taxaw nee na def ko. dama ne sa njëlbeen depuis deux mille dix neuf. Mm-hmm. la wax ji waroon tënku waroon farankulaay. Mm-hmm. bañ ko laajee falu nga waat lan nga war a tey jii lu lu lu lu ñuy xa lu ñu war a séntu ci yow. Mm-hmm. dafa waroon ne rek sama mujjanteel mandat ngi nii. 2024 dinaa organiser élection dem sama yoon. mais nii wii nii non boobu moo jur lii. waaw donc tey bu demee ba ne nekkuma candidat. dama ne mooy li normal c'est la norme c'est la norme mooy li normal. waaw ñu gërëm ko am na ñu ko mën a gërëm mais ñu bañ ko gërëm moo gën a am sens. waaw parce que tamit tey le fait que mu ne du def troisième candidature mu wax ko. ne du def troisième candidature di dana jur dana ko jural moom jàmm jural jàmm sénégalais yi. parce que dama ne guléet guléet Sénégal. mbir ba nga xam ne sénégalais yaa ngi ko doon xaar. Mhm. keroog président ba muy wax gisuñu ay takk der yu génn wër dëkk bi yëpp. Mhm. gisuñu ay blindé yu ñu teg ko ci dëkk bi gisuñu gouverneur jër alerte ne bu moto daw ne bu bu ñu jaay essence mooy maanaam le président est allé dans le sens voulu par les sénégalais mhm. donc am ci ngóora mais tey jii par exemple buñ naroon taxaw ne. kii nga tudd sànq muy Ousmane sonk du doon candidat. da nga gis ni que dëkk bi yëpp daañu ko barricadé. donc moo lay wan ni que. quelque part la mu wax. mooy lu normal moo tax sénégalais yi terewu leen naan terewu leen lekk. voilà. mooy benn bi ñaareel bi. léegi léegi ndax loolu mu wax dem ci li Sénégal yi bëgg ndax da koy jural mu génn ci li ñuy wax par la grande porte ndax jàpp nga loolu yow. no par la grande porte moom. parce que am na ñuy tàmbalee wax loolu. nit moo koy bindal boppam nit moo koy defal boppam euh, Sénégal bi ñuy fal président Macky mhm. dañ ko fal sur la base du programme yoonu yeeg yoonu yokkute yokkute mu diggoon ñu fii une gouvernance sobre et vertueuse mhm. diggoon ñu fii la primauté de la patrie sur le parti diggoon ñu fii une justice indépendante mhm. diggoon ñu fi diggoon ñu fi diggoon ñu fi diggoon ñu fi in fine près de douze ans après li ñuy constaté Sénégalais yëpp di ko constaté. Mhm. professeur Mounir mu ngi koy wax sànq la rapport Covid mu ngi fii mooy le dernier. Mhm. le dernier d'un chapelet de scandale à milliards. ñu gis ci ay ñooñoom ñi ñu ci tudd ba tey jii woowuñu ci kenn ci wàllu yoon donc gestion sobre et vertueuse boobu daanu na taxawoon mhm. justice indépendante la gis. bu ñu gisee les éliminations politiques de Khalifa Sall. Mmh. Karim Wade leer na ñëpp ou bien les gens am nañu sensation bi ni que ñii ñu de ñii nga xam ne ñoom nañu éliminer fexe ba bokkatuñu ci course euh, politique bi ñu boole leen waa dugal leen ci à l'issue de ce dialogue là mhm, mhm. ñooñu noonu justice def cee dugal loxom lu bëri bëri bëri bëri pour les rendre inéligibles donc foofu tamit il a échoué na woon la patrie avant le parti mais tey jii bokkal APR fii nañu toog ñun suñu télé bi ñu tëj ko weer mhm. parce que yee yaay dañ ñoo jiiñ laa la wax mhm. tey di jiiñ yooyu dara du ci dëgg ay kàcc dong la mhm. ne ñun ñoo génnee ay image yu militaire fële ca Ziguinchor yu doon manifester du dëgg. nee naa fii keroog bës bu ñu génnee image bu Walfadjri génnee di wane ay. militaire keroog jooju wax fa dëgg yàlla laay bàyyi taabal bi. mënuñ ko génnee beneen bi ñu ne lan sunu correspondant ba sa Ziguinchor Khalil dafa doon joxe position militaire yi ma ne leen encore boobu du dëgg. mais ci au même moment ay nit ña nga xam ne bokk nañu ca APR wala ca Benno dégg na leen ñu toog ci tele naan nañ dem taali kër Ousmane Sonko nañu dajale juróomi junni nit wala fukki junni nit dem jëli ji Ousmane Sonko dégg nañ fi ay député ne troisième mandat jaral na leen ñu jël ay jaasi ku ci àndul ñu gor la dégg nañ fi ay député bokk ci APR daal di ne ku àndul ci troisième mandat nañ la yeew ba nga ne teg dem sànni la fële ci biir ndox mi. ca jamono dañ koy wax ñaari gendarme ñaari mil sous-officier nee nañ dañ doon nappi ba réer daanu ci biir ndox mi. Hmm. ba tey jii kenn amu ci lu leer. Hmm. donc wax yooyu ñuy wax na ma garaawee ba tey li hmm. procureur waxu ci gendarmerie waxu ci police waxu ci woowuñu ci kenn. donc moo tax ma ne la patrie. sur le la primauté du de la patrie sur le parti. c'est un échec loolu moom fàddu na waaw tey. le Sénégal est en de panser mmh. ses mm. à travers le discours du président mais ca biir discours bi na ko waxee la ci ëpp dafa mel ni ay tëkku mm. man nag dama jàpp mm-hmm. comme ñoom Auchan yi ñu lakk mm-hmm. boutique yi ñu lakk commerce yi yàqu mooy seen priorité moo leen gënal moo leen ëppal xale yi si ñàkk seen bakkan mhm. dama yaakaaroon ne que dañu waroon njëkk def une lecture des perte yi nga xam ne mhm. moom la ci Sénégal ñàkk mhm. perte yooyu lan moo ko engendré ak suba lan la mun a jural Sénégal je crois que tey jii professeur Mouniru ngi fii fi ñu mun a indil la dimension économique économique de ces manifestations du coût de ces sur le vécu des Sénégalais. très bien moom sax moom may defal bilan comme moom jeexal na li ko fi dese ay six six mois la euh, moom dina ma defal bilan ci côté économie euh, professeur Mounirou maanaam euh, politique économique bu Macky Sall nu mu ko gisee. docteur Seydou Diallo itam dina ma ko defal ci santé. ndax loolu moom moom moom kii am la <laughs> domaine am la. léegi li ñuy def mooy damay dem noonu rek bu ko defee ñu matal première tour de table bi docteur Seydou jàllo moom njiitu réew mi Macky def na discours am wax ne du bokk ci biir di ñëw am na nag ñoo xam ne euh, bi mu ne du bokk rek ñoom dañoo soulagé wu daan ah, kon nag ñun lañ doom bëgg jot nañ ci ndax troisième mandat lañ doom bañ mais am na ñeneen ñoo xam ne discours bi daanaka safagul ci ñoom dara euh, parce que ñoom Ousmane Sonko la ñu àndal ku ci mel ne yow yaa nekk coordonnateur bu Kër ko euh, rappelé ne yaay coordonnateur bu Kër Massar sa njiit ñu ngi ko barricadé Euh, sa njiit Ousmane Sonko ñu ngi ko barricadé këram ñu ngi barricadé buntu këram boobu tey mënta génn mënta